waaw moom day lu dul jàmm-jàmm ko gën lu dul jàmm-jàmm ko gën bi ñu ko woowee it li wax mooy damay dem bu ma kenn topp bi mu demee kenn topp ko loolu message la bu bu bu baax xitaab la boo xam ne bii bu bu diina bëgg la xitaab la boo xam ne bu penc ma bëgg la léegi nag su boobaa ñiy àtte ñoom tam bu doxeeb jéego ñi doxub jéego ñu doxub jéego joo xam ne ñun ñëpp daañu daje ci jéego boo xam ne bii lii la penc mi bëgg lii la ñu dox ñu ñëpp jëm ca la ko mooy xëccal ak bàyyi ak jàppal ak maa lëpp doole nangam nangam yooyu su xewee ci penc rek ñool ñool lay indi ndax xam nga ne nii xew tey bu xewoon mars ba mën naa am ñool ñool ja booba bañ a am rek lay tekki kon discours boobu moom mboolem ñu ko dégg ku ci nekk rafetlu nga ko moo xam euh, ci anam boo mën a bokk nag ca daara jaag ca jàngu baag ca ca ca euh, penc maag ñëpp bokk nañ d'accord ci ne discours boobu ma def ne léegi bu ma kenn topp damay dem ñu laaj ma ma tontu siwaat kenn toppee ko ku ne yaa nga toog sa kër ñu mu dem ñu laaj ko mu dellusiwaat këram yàlla na yëpp yëpp di doxee noonu rek tabaarakallaahu jàmm ne ñooy xat baña a damm bant bañ a damm. waaw ah, jërëjëf euh, yaa oustaz euh, mu mel ni kon. ñetti question yi yegg si nañ ci xanaa léegi dañ lay bàyyi nga joxe ay recommandation ci réew mi ci ëllëgu réew mi tamit yan taxawaay lañ war a am yoo xam ne daanaka comme ñun réew jullit lañ te daanaka suñu yitte yëpp nekk na ci euh, pas-pasu njullite daanaka màggal yee ngi fi gàmm yee ngi fi appel yi euh, donte ne ñun nag foofu si yooyu mooy suñuy dajuwaay wax dëgg yàlla war nañu mën a am ay recommandation yoo xam ne ci alxuraanul karim lay jóge ak ci sunna yonent bi aleyhi salaatu wa moo xam ne fa ñuy fa la teg suñuy tànk. Mhm. waaw loolu de mooy yaa jëf ci laaj bi ñu bokk luñ mënta séddoo dañuy rafetal bokk ga wolof nee na benn nen buñ ko bokkee ñun ñëpp dañ koy omelette ku ne nga bu sa sëpp ca waaye buñ ko buñ ko baxalee boo moytul dana am ñu dul am am réew noonu la mel ñii politique. ñi sëriñ ci kenn ku ne fi nga nek mënu fa ñak nek te jëriñ nga fa réew mi su ko defee bu xel rek ñun ñëpp dañ am jamm politiciens yi momu ñu réew mi nun momu ñu réew mi no bok réew mi ñun ñëpp ginaaw no bok réew mi ñun ñëpp mënu ñoo dem fenn ñu nationalité fenen lu mën di xew fi lañuy fekk fi lañu juddoo fi lañu yaroo boo fi lañu denc ëllëg yàlla na yeex loolu bu ñu ko xamee rek ñun ñëpp mën nañoo daal di bokk réew mi yëg ne ñun ñëpp dañu war a defar bu ñu àndee defar rek mu defaru yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ca def ci suñuy poos dara asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.